salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi seetaan RTT TV ñu ngi leen di nuyu ci seen télévision bu am solo bii di RTT TV télé des grands événements ci ni ñu leen ko tàmm amalee ci seen i jotaayu diine yi xam ngeen ni télé bi événement bu am mu wax leen ni dina jóg dox wax ci waaye indi leen li ci information waaye xool acteurs yi nga xam ne aussi tamit ràññeeku nañ ci dëkk bi. ñu ànd ak ñoom ci seeni jotaay tey nañ am nañu mbégte dalal benn ndaanaan di leen ci ñëwaat léegi waaye lu ko jiitu ñu nuyu téléspectateurs yi euh, téléspectateurs yi seetaan télévision bi yëpp fu ci waay mën a nekk ñu nuyu la jox la sa wàccuwaay waaye ñu jiital ci kilifa diine ji ñaanal leen sunu borom guddal seen fan te may leen wér ci njiital Cheikh Mamadou Mountakha Bassir xalif général des Mourides ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko ziar te di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal liggéey bi nga xam ni moom la wuutu maam yu tedd yi ak waajuram yu tedd yi yàlla na ci def lu kawe njottam ci bi sëñ Touba waaye ñu nuyu sëñ Amdi Modou Mbedd Fall xalifa général des Baye Fall moom it ñaanal ko taxawaay suñu borom def ci barke waaye mbooleem naal yëpp mu àggale ko ak sagoom waaye ñu ñëw fii ci Thiès nuyu Serigne Mbaye Sy Mansour xalifa général des Tidiane ci Tiwaawan ñu nuyu ko bu baax jox ko wàccuwaayam moom ñaanal ko liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyee lislaam mu àggale ko ak sagoom waaye ñu ñaanal Serigne Muniru Njëgeen Al Khalifa nuyu ko bu baax jox ko wàccuwaayam nuyu njaboot gi yàpp waaye ñaanal leen bu baax sunu borom guddal seeni i fan barkeel liggéey bi ñuy liggéey lislaam ba nu mën ci jariñu tey ak ëllëg euh, nuyu bu baax njabootug Serigne Saliou Touré Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Touré moom it ñu nuyu ko ziar ko jox ko wàccuwaayam ñaanal sang ba Cheikh yu ture sunu borom yokk ay leeram te ñu ci barkeem barkeem Serigne Touba euh, ñu ngi nuyu bu baax nag waa kër Serigne Abdoulaye Yaqin euh, ci njiital xalifa ba soxna Saybata ñu nuyu ko bu baax siyaare ko waaye nuyu jëwrinam Serigne Mor Ba. ak njaboot gi yëpp waa kër waa quartier bi yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara di leen jox seen wàccuwaay ah, te di leen wax ne tey moom ñu ngi ci quartier bi Serigne Abdoulaye Yakhine ndax ki ñu dalal bokk ci njabootu Serigne Babacar ngoom waaye ñu xam ko ci diwaanu Thiès ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ah, ci yoon wi waaye di bégal mbooleem jullit ñëpp la ñuy wax sax mbooleem jullit ñëpp ndax sëñ fàllu cees moom lañ ko gën a xamee waaye sëñ Fallou ku ne xam na ni ku ko dégg rek sa xol sedd waaye ku ko dégg am mbégte ci moom ngir way yi nga xam ne saa su nekk mu ngi fente ay air di ko indil askan wi tey nag moom la ñu dalal ci palaatu RTT TV ngir waaj bis bu am solo bi nga xam ne euh, moom lay amal le 2 mars fi le 3 fi nga xam ne mooy quartier Serigne Abdoulaye euh, di bis boo am solo boo xam ne yàgg na ko taxawee waaye di ko ànd ak ay soppeem di ko ànd ak ay xaritam waaye di ko ànd ak ay mbokkam Euh, ñu nuyu bu baax sunu jëwrin Serigne Modou Ngom moom it tubaarkàlla di suñu jëwrin di sunu xarit ñu nuyu ko bu baax jox ko wàcc waayam te di ko siyaare bu baax a baax nuyu njaboot gi yëpp euh, bu ko defee rek dañuy bàyyi Serigne fàllu mu nuyoo téléspectateurs yi nga xam ne ñooy seetaan RTT TV Serigne Fallou ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog mbokk yi. waaw maa ngi lay wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ xaadim waaye di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ko wax mbooleem jullit mbooleem doomu aadama boo xam ne rek waxtu wi tembe yaa ngi jàkkaarloog euh, télé bii di euh, RTT TV mhm. euh, foo mën a nekk ci biir réew ak biti réew ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la jox sa wàccuwaay wi la sunu borom jox waaye di jiital ci nuyoo bi itam Euh, ni nga ko waxee léegi rek euh, ndax wa atul buyuta min abwaabiha te yàlla dafa def ñu bokk ci tariqatul muridiya mm-hmm. euh, kon dañuy ñaanal di nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sunu boroom defal ko gudd fan gu ànd ak wér. ba yi mu am ci liggéeyal ko lislaam Euh, jaare ko ci ëttub maamam Cheikh Al Khadim sunu borom defal ko ci lu kawe njortam bi jaay Ahmadul Khadim waaye it di ziar mbooleem kilifa diine yi nekk ci biir réew mi moo xam ñu nekk euh, Thiès moo xam ñi nekk. ci beneen raison bu mu ci mënti nekk rek ñu ngi leen di ziyaara bu baax di ziyaar itam képp koo xam ne rek sunu soppe nga mhm. mbaa nga doon sunu xarit waaye di ziyaar it ëtt ba nu jugee di ëttub Cheikh Abdoulahil Yaqin mhm. di ziyaar soxna Saybatu Haydara waaye di ziyaar njabootuk Serigne Babacar ngoom te Serigne Mbaye Ngom Rijal nekk ca bopp ba di xalifaam ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di ziyaar ay rakkam yëpp Serigne Modou Ngom ak sunu baay Abdou Sassoum ak sunu bàjjen yeeg sunu jur yi ñëpp rek ñu ngi leen di ziar di ziar sunu yaay itam ah, di am mbégte bu baax ci teew gi nu teew nag tey ànd ak sëñ Xaadim wax dëgg yàlla ci émission bu mag bii nga dalal ah. eh, bi ñuy ñëw ñu ànd ak sunu frère sunu cousin sunu xarit di mm-hmm. Cheikh Talla Dieng mm-hmm. di ko ziar moom itam di ziar waa kër gi yëpp itam mm-hmm. waa RTT TV ñëpp ñoo ngi leen di ziar di am mbégte bu baax a baax a baax ci teew gi nu teew ci seen biir mu ngi noonu Serigne Fallou ngoom ñu fay ko nuyoo am mbégte bu baax ci nuyoo bi Euh, am mbégte it ci wuy si nga xam ne wuy si ne ko suñu jotaay bii nga xam ni mooy wàcc wàccaayu bis bi euh, ñu am ci mbégte bu baax a baax a baax bu ko defee comme ni mu ko waxee ci nuyoo rek euh, Cheikh Talla Dieng sëñ Cheikh ñu nuyu la yow it bàyyi la ko nuyoo ak téléspectateurs yi. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sëñ Xaadim ñu ngi lay ziar bu baax. Mm-hmm. di ziar waa téléspectateur RTT la télévision des artisans. Mm-hmm. di kontaan ci invitation bi ñu invité man ak Fallou Thiès ñu gën ko xam ci sëñ Fallou Ngom. di nuyu comme ni ngeen ko waxee rek suñu xalifa. Mm-hmm. waaw ah, sëñ Mountakha Mbacké yàlla na ko yàlla saxal wérul ko fi bépp kilifa diine mm-hmm. di wax rek ñu ngi sant ñëpp waaw après bu ñu xuusee ci waxtaan bi daal mm-hmm. ñu gën a leeral mu ngi noonu nuyoo baa ngi dinañ ci mm-hmm. dikkaat gën a yaatal comme ni mu ko waxee ndax tey moom fas yéene nañoo xam kan mooy ñu Fallou Ngom fas yéene nañoo tamit xam bis bi nga xam ne moom la dëgmal incha allah le 3 la 2 ok le 2 kon bu ko defee ñu gën koo xam lan mooy sabab bi incha allah waaye balay loolu rek suñ Fallou moom euh, ku jàkkaarloo yow tey sa xel dina dem ci suñ Fallou tey lu mu nuy bégalee waaw fu nu la gis rek dañ naan sëñ Fallou tey ban heure la nu fas yéene bégalee waaye xañ na bis bi moom am na loo ci wàcc waaw day mel ni bisub sëñ Baara la nag waaw lan ngeen ci indil ñu ubbee ko jotaay bi allah بدت باسم الكريم المعين على سيح ابن الحديم اللمين بدت باسم الكريم المعين على سيح ابن الحديم اللمين نويت بمدحي وأرجو به قضى القاجة والنجاح باللمين kabur yàlla fal jox ko sañ-sañ ba mooy sëriñ baara mbër may karim tay lamin huwa al abru bunu l barra wal birra bi aminatin wa hiya umul amin kilay doomi ahmado doon ahmado donay ahmaday neenu doy mooy lamin bisub feeñu sëñ baara sëñ bàmbane la am càkkuteefam bi jaahin lamin sëriñ bàmba moo laaj boroomam jëmam mu ñëw seere yor mbooti kun doon lamiin bisub feeñu sëñ baara sëñ bamba ne la am càkkutéefam bi jaahi lamiin sëriñ baara bis bam ñawee àdduna la sëñ bamba wax rey na doy na lamiin ki ñëw faj na seen aajo yépp ak ma firndeel ko bégg leen ci moom mi lamin ña doon tarbiya woo ko sàkkuy ngërëm ca buur yàlla am nañ ko ngir moom lamin ni bur yàlla daa bég ci moom ak yonent man itam ma bég mbég mu rëy ñel lamin mhm. kilay sulamun lil huda wa najaax moroomam amul cheikh baaraay lamin huwal aalimun aabidun shaakirun sëriñ baara mooy xuut bu raxal lamin Moustapha Aminata Baara Aminata Lo Serigne Baara yaanu doy yaay al amin Moustapha Aminata Baara Aminata Lo Serigne Baara yaanu yaay al amin. Ndeysaan Serigne Baara yaanu doy rekk dey. borom guy mbind yàlla nañu ko yàlla fayal sëñ Fallou tubaarkàlla way neex na way tubaarkàlla neex na waaye way nga jàmbaar Cheikh Mamadou Lamine Bara ah, di doomi sëñ Tuubaa waaye di jàmbaar di ko liggéeyal euh, sëriñ bu tedd ba di waaye di ko liggéeyal way juróom bu tedd bi sëriñ Bara Aminata Lo ñu siyaar ko bu baax am mbégte lool ci way yi nga ko fental yàlla yàlla guddal sa fan bu ko defee ñu ngi siyaare bu baax sëriñ Moustapha Fall Kara moom it di jàmbaari sëñ Modou Kara ci dëkk bi ñu nuyu ko bu baax jox ko wàcc waayam waaye nuyu waa diwaan bi yëpp nag sama xarit yi ci nekk ak sama soppe yëpp ñu nuyu leen nuyu Papa Ndiaye Kara moom it di jàmbaar ñu nuyu leen bu baax nuyu Baye As ñoom ñëpp tubaarkàlla bu ñu gisee njabootu sëñ Modou Kara rek suñu xel dem ci ñoom waaye ñu nuyu sëriñ Baara Cissé moom it di sëriñu daara di jàmbaar sëñ Touba nekk fii ci Jaxaw Euh, ñu nuyu ko bu baax jox ko wàcc waayam Serigne Aliou Thioub soldaar moom it ñu nuyu ko bu baax euh, jox ko wàcc waayam waaye ñu nuyu borom anniversaire bi doon def anniversaire fan yi ci kër gi ñu nuyu ko bu baax a baax xam naa ci euh, ñi ko doon envoyé ay cadeau jot naa ci ay wéef yoo xam daanaka toll na ci cent quinze mille xam naa ni moom góob ma ni dinaa ko mën a transférer ndax fan yi réseau bi neexul xam naa réseau bi neexul bu yow boobu mu muñ ko rek incha allah <laughs> waaw bu defee ñu ngi am mbégte bu baax sëñ Fallou Euh, ñu bari yóbbante na ma nag ni naa laaj Sëñ Fallou moom lan moo ko dugal ci am njàng waaw ndax gis nañ ni tey yaa ngi ciy bëggal àdduna ba ci festival yi nga xam ne day am ci TFM ci koor gi dañ lay gis nga ci way way yu am solo ci taxawaay yu mag waaw ñu bari di xam suñ Fallou moom kan moo ko tarbiya ci am njàng waaw tabarakallah sëñ xaadim euh, sëñ Fallou de moom njàng mi man na ni euh, ci wet ndono la ci moom. Mhm. waaye ci geneen wet it xëy na euh, bëgg-bëgg la. ak itam euh, passion. Mhm. tax fu mu ci yegg rek xëy na euh, loolu yeggale ko fa. Mhm. dañ koy ziar sax muy sunu kilifa di sunu bunt ci cheikhul xadim. di cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. nga xam ni yàlla dafa def mu juddoo ci ëttub. Cheikh Ababacar Ngom fa la ge fa la feeñee. sëñ Modou Kara sëñ Modou Kara. ndeysaan mu feeñee ci ëtt boobu ñun it ñu feeñee ci ëtt boobu. te moom ku ko tudd. Mhm. Euh, tudd xasida ndax ni mu ci mel waaye ku ko tudd it mhm. euh, tudd zikrullah mhm. euh, yàlla def ñu feeñee ci ëtt boobu ñu nàmpatal nu itam ci zikrullah nga xam ni bi nuy gën di nekk ay tuut tànk fi mu ne mënuñu la wax ni at mi lañ ko tàmbali ndax euh, dañu xàmmee rek. nekk ci euh, nekk ci. ndax dañu ñëw fekk sunu ay mag nekk ci. Mhm. Euh, sunuy jur itam. Mhm. muy bàyyi Cheikh Ngom sëñ Modou Ngom. Mhm. Baye Cheikh yàlla na yàlla yokk ay leeram mooy wayjuru Pam Ndiaye. Oustaz Ousseynou kan maanaam ñoom ñëpp rek. di dund turu yàlla. ba taxoon ñu amal fa daayira boo xamante ni. foofu la newoon ci ëtt ba. ñun ñi bi ñuy gën di nekk tout tànk dimanche su musaana jot moom booy nelawit doo nelawee sa néegu wayjur maanaam ca daayira ba ngay nelawee ndax foofu lañ ko daan def ca kër ga nga xam ni loolu ci lan xàmmiku ba ma njaay kamara taxawal nu daayira maanaam ñu nekk ca mhm. di ci nab nabi nag di ci nab nabi teewul bi jàng jotee ñu yóbbu nu ci école yi ñuy jàngi maa ngi jàngee ci Al Azhar fa laa ah, jànge ba 2011 laa fa jeexal waaye it euh, sunu borom it def def maanaam def ak bëgg-bëgg ci euh, li nu nekk muy tudd yàlla mm-hmm. euh, tax ñu bari xam nu ci itam euh, ñu nekk ci di ci góor góorlu mm-hmm. ba tey ni nga ko waxee ci festival yi ñu mm-hmm. dinu ci invité dinu invité ci ay programme ci biir réew mi ak fu nekk wax dëgg yàlla ñu di fa dem te lañu fay yóbbu rek mooy li nga xam ni moom la ñu yëngu di zikrullah waaye di sant it ku tedd ki ndax sunu wayjur di sëriñ Mbaye Ngom Ridial yàlla dafa def ba ci bii ma mujjee yëkkati bii ma njëkk a yëkkati muy euh, xasida gi nu way seex Mouhamadou Lamine Bara mhm. maanaam yooyu yëpp mhm. moom moo ko def ba ci mhm. bamba bamba beeg euh, maanaam way yi nuy dégg ma di ko way bu dul Cheikh Moussa Ka rek nee na euh, leneen la ma way moom moo ko def te def ko nag ci Cheikhul Khadim ñu nit ñu di ko biral euh, bi ci des it Cheikh Ahmadou Kara di bind ci ku tedd ki ñu ciy nab nabit di ko biral ndax bu nu xamee rek ñoom ñoo tax ñu xam na te li ñuy def itam wérekaan la moom waaw wérekaan ku tedd ki la di bind ci ku tedd ki lu yéeme <laughs> loo xamante ni <laughs> néewaa na bët lépp tege ci. waaw loola nag boo amee euh, kilifa mu di ko ngay gis muy góorgóorlu noonu ci sëriñ bi. Mhm. te sëriñ bi daraam génnul yàlla génnul yonent bi léppam di yàlla léppam di yonent bi. kon nag ci voie boobu rek ngay fexe tegu. Mhm. te góorgóorlu. Mhm. Euh, ndax itam dañuy wax ni way wi. Euh, bëri na yu ci xew bëri xëy na léeg-léeg fu muy nu nu koy defee waaye nag toujours rek nanu te brut bi mooy tàmbalee ci sëriñ bi euh, yem ci moom te ñi ciy ñi ciy bégg itam nga xam ne sëriñ bi rek a tax euh, ak yàlla ak bi bu ko defee nga leen ci mën di satisfaire macha allah am na solo xam naa doy na sëkk tegtal ñu ne kat yow mii fi nga a jamono euh, yaag sëñ Modou Kara sëñ Modou Kara fa la fa la fa la gënee jamono wala fa la nekkee ak ndawam fa la gënee àdduna mu ngi noonu loolu tamit lu am solo la ñu doy sëkk ab tegtal ndax am na ñoo xam ne ku leen fréquenté rek li nekk ci ñoom faaw nga jël ci waaye sëñ Modou Kara gis nañ ni ay way maanaam ni mu ko yombee sax boo koy misaal doo ko mën a misaal ndax fu mu toog mën na fa génne air bu bees loolu bu ñu ko seetloo ci say jëmm dafay mel ni ñu ngi ko ciy gis ndax gis nañu euh, sëñ Fallou daanaka air yi ba euh, yi nga fent jot naa bari ndax album yu bari jot nga ko génne xam naa loolu di nga ñu ci ñëwal ci album yi naka la toll ak ban nga ci njëkk a génnee ak booba kan moo ko bind waaw xam nga dañ daan faral di def ay cant mm-hmm. daanu ci invité mm-hmm. ñuy faral di dem euh, nga xam ne bëri na ay air yoo xam ne bu dee air yi moom bëri ah. xëy na euh, jamono jooja nag ni jamono bindoo woon ci ñun nga xam ne da nga daanu euh, zikar di dem rek mm-hmm. doo ko organiser ndax dafay fekk nga gënoon nekk ndaw xëy na taxoon na album ñorunu woon lan daan def rek mooy def single bàyyi mu génn nit ñi di ko jot di ko bége léeg-léeg nga dem ci cant ñu enregistré ko maanaam yow boo ci jógee gis ni euh, maanaam loola day tasaaroo. Mm-hmm. nga xam ni ba ci sama tur wi nit ñi xam muy turu fàllu Thiès. Mm-hmm. ci yooyu lay jógee. maa ci mm-hmm. cant yi lay invité. enregistré ca def ca wet ga Fallou Thiès. maanaam yooyu après nit ñi di ko partagé jamono jooju la infrarouge di door a xew ak. bultuuf xeet yooyu. nga xam ni ñu koy partagé ba fi jamono toll tey. ci wàllu euh, maanaam. digital beeg yu ni mel. nga xam ni euh, loolu it wax dëgg yàlla sunu borom defal nañu ci tawféex. bu dee album ñu ngi mujj def album doonay rasul bi nu njëkk a def mooy album euh, jërëjëfe Cheikhul Khadim. nga xam ni maa ngi ci àndoon ak sama frère sama mag muy Papa Ndiaye Kara nga xam ni ñoo ko ànd euh, lu bari itam ñoo defe ko ci ginnaawam. wax dëgg yàlla yàgg ànd. di defandoo lu bare bare bare mooy jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh boobu noonu nga xamante ni ak euh, album bu bu six titres la woon yaakaar naa mhm. nga xam ni album bu amoon solo la mhm. booba ngi ko defoon 2012 2013 mhm, waaw ci lañ njëkk a def album boobu muy way wu riis muy way wu yàlla ak yeneen morceau yoo xam ni ñaga ca <laughs> na seen njort waaw waaw kawe na album boobu lool kawe na suñu njort ndax euh, alxuraan yaa Muhammad bi nga xam ne ba léegi waaw dañu koy demandé dina ko laaj ngir ñu liggéeyaat ko boobu ci la bokk jërëjëf si Ahmadul Khadim ba nga xam ni saa su nekk ñu ngi koy daaj ci mm-hmm. bërëb bu nu mënti demit mm-hmm. euh, ci album boobu la bokk mm-hmm. maanaam euh, ay mbir la yoo xam ni li tax muy dund mooy du jëm mi ki way wala wayit wi waaye ki nuy way la ki nuy way muy Cheikhul Khadim ndeysaan daanaka mooy dundal way wi te mooy tax itam ndax taalibe yi moom dañoo bëgg Cheikhul Khadim dëgg la kon nag looy wax ci Cheikhul Khadim rek dañ ciy gis seen bopp wallaay ndeysaan daanaka loolu moo tax ba ci 2023 bi 2022 bi mhm. ci la ñu def album donoy rasul mhm. nga xamante ni moom mooy événement bi nu mujjoon a def itam ndeysaan àndoon ko ak euh, waa Fada Ilu Salaam te Cheikh Talla mi bokk ca ñoom itam macha allah ndeysaan macha allah xam naa foofu rek la ñuy euh, ubbee mhm. euh, ki nga xam ne mooy Cheikh Talla moom it tubaarkàlla bokk ci staff bi Euh, di liggéeyandoo ak Serigne fàllu cees mhm. am naa ne li ñu naan jàmbaar ju nekk rek dana am ñu ko dar ngir jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne yenn yi nga xam ne mënul koo defal boppam. Mhm. sëñ Cheikh xam naa ci loolu nga ñu indil tuuti rek benn exposé. Mhm. Euh, parcours sëñ fàllu ngoom bi mu débuté ba bi mu créé premier album bi nga xam ne moom la génne ba bi mu mujjee génne loolu ci mën a indil. waaw moom am na lu mu tudd lu bari comme ni ma ko waxee woon rek. mu njëkk. daanaka ba ñuy nekk ci moom ak euh, premier album bi mu wax ci 2012 2013. macha allah muy album boo xam te da ko àndoon ak magam muy Papa Ndiaye Kara ñu koy ziar bu baax a baax a baax mm. di sama sang yàgg maa jox yére ñoom samay sang lañ ah, ah. moo tax ñoom suñu saa ñu ngi lay solal ñu may solal ah, nga xamante ni muy na ñoom man moo tax may na seen ginnaaw <laughs> macha comme ni ma ko waxee rek ni comme 2012 2013 eh, eh. defoon nañ benn album moom ak Pam Ndiaye Kara daanaka album boobu sax moo leen gën a lancé waaw léegi nag bi ñu demee ba ci côté 2016 mm. ci lañu ñun muy man ak ay jëwriñu làmp yëpp ñu dañ koy gunge. Mm-hmm. am benn group boo xamante ni dafa mel ni waajuram moo ñu jox sax tur bi ñu tuddee ko Faraa ilul Salaam. mu boole ñun ñi nga xamante ni ay mboq lañ ak ñun ñi nga xamante ay xarit lañ. Mm-hmm. ak ay soppeem groupe soppeem yu nekkoon Dakar ñoom jëwriñ seer. Mm-hmm. ay laxaat ak ñooñu ñu créé benn groupe. muy groupe bi nga xamante ni moo ko gunge ci premier événement am en 2017. ñu defoon ko kër sëñ ablaay fii mu nekkoon événement nag bu réussir boo xamante ni waa kër sëñ Ablaye ak waa Thiès ñëpp ñëw ñëw ñëwloon ba kenn xaju foon ñu ni pourquoi pas nag lii duñ ko def Sorano mhm. léegi nag en mille 2018 ci lañ génn am fit rek boo boo boole suñu doolee rek ñu mhm. waaw sëñ Tuubaa moom booy def dara rek. Mhm. moom moo ciy teg loxo. ñun dañuy dem Sorano 2018 ñu dem Sorano. Mhm. waa Thiès gépp nag génn jàpp ñu. Mhm. Thiès Dakar affaire bi réussir. 2018 bi nekkoon suñu deuxième événement. ci Sorano 2019 ñu waat ko Sorano. léegi bi ñuy dàbbali nag 2019 Sorano ci lañ programme woon génn album après Sorano. yàlla dogal nag après loolu. Covid bi jaar fi. nga xamante ni lépp boo dee xool Covid bi ñëwoon na àdduna lu ci bari bari taxaw. ci leen stand by toog 2019. ba deux mille vingt deux ci lay soog a enregistré album bi muy Donneur Rasoul di album bu am solo. bi Donneur Rasoul génnee nag ñu def eh, ñu ni comme avant Covid bi di ñëw. suñu ñaari événement yëpp dañ ko génnee Thiès yóbbu ko dakaar nit ni di ñu fekk si te ñëpp xam nañ ni. parfois jamono li mu demee côté déplacement beeg guddee ñëw beeg day metti ñu ni léegi pour def lancement album bi ñu tëgg beneen cant def ko sams ci lañ ko def sams prestige en 2022 léegi 2023 bi ñu toog noppaliku moo tax ren nag ñu ni comme moom dafa am lu mu jot a génne ci sëñ Baara ñu ni dañuy def journée delloo njukkal sëñ Baara léegi nag ñu ni loolu dañ koy delloo buum ca booy booy ba la ñu commencé woon 2017 ci kër sëñ Ablaye nga xamante ni ñëpp dañ ñoo jàppale woon léegi au lieu ñu luy teg di ko yóbbu Dakar ñuy sonn di ñëw ak coono googu yëpp ñun léegi dañ koy gën a yombalal. Mhm. ñu waat ko ci koñ bi. Mhm. mooy fa nga xamante ni daal ci origine yi. ñu delloo ko foofu. mooy le deux bi incha allah deuxième édition bi moom ngeen yóbbu woon Dakar. Dakar def ko Sorano. def ko Sorano ak troisième édition bi. ak troisième édition bi. Mhm. mën nañ sax bi amoon Sams. bokkul woon ak. Euh, comme édition bi ñuy def anniversaire bi amoon Samsu moom. dañoo génne album donné Rasoul. xam naa sëñ Cheikh. Hmm. bëggoon ñu taxaw ci Sorano bi tuuti. voilà ah, ndax dafay mel ni wootee euh, si sa gox. Hmm. yomb na ndax say dëkkandoo say soppe say xarit ñoo lay wuy si. Hmm, waaye boo nee nag da ngay génn raison bi nga nekk demaat ci beneen raison. beneen raison bu toll ni Dakar. waaye waxuñu Dakar sax mais nga ni da ngay dem ci. Euh, grand uh-huh. Sorano. muy salle boo xam ni salle bu mag la. di gën ay mbooloo mu bari. waxuma la dara sax waaye kopparee tax nga jot ci sax. dafa xaw a kii. macha allah a waaw mooy comme ni ko waxee ci commencement ba rek li ñu mayoon fin mooy premier événement bi ñu defoon première édition bi ñu defoon ci koñ bi waa koñ bi ni ñu génnee affaire bi réussir ba kenn xaju fa mhm. loolu ñu gënoon may fit mhm. ñu ni comme moom ku tedd kii lépp loo koy defar rek yow demal ak sa doole après moo ci teg loxo wax dëgg fa yàlla looloo ñu mayoon fit pour pourquoi pas Sorano ñu def démarche yi dem waa Sorano nag jàpp ci parce que day saal boo xamante ni souvent ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu zahir bi liñ leen koy luyee ak ñuy yëngu ci wàllum sikar bokkul bokkul waaw léegi nag bi ñu demee commencé dem boole suñu waaw suñuy moyens yu ndaw yi ñuy commencé dem rek di góorgóorlu ku ne jàpp ci léegi nag waa Fra Ilou salaam nag foofu lañ ci def liggéey bu am solo. liggéey bu am solo lañ ci def ay jëwriñ Lamp ak Abdou Seck ak jëwriñ Seer waa dakaar mooy comme ni ma ko waxoon sànq rek booba fekk na mu amoon benn fans club. groupe bu bari nit boo xamante ne ñu ngi woon Dakar. yaraax jëwriñ Seer jiite leen ku ne jàpp ci. metti woon na nag torop nag torop sax torop. parce que bi ñu joxee heure ni vingt heures ngeen di commencé. vingt une heures jàpp vingt deux heures lañ mujjee commencé. parce que boobu ñun ñoo jëloon suñu moyen bopp. dañoo jaay ticket mais ñoo jël suñu moyen bopp pour ay car pour transport. macha allah xam nga Thiès souvent li ñuy xaw a déplorer rek. mooy pour souvent responsable yi dañuy xaw a. waaw dañuy yéex a jàppale bi dañuy yéex a réagir dañuy yéex a réagir dañuy yéex a réagir ndax da topp ba mujj gi sax da ngay a découragé day metti dañuy yéex réagir est loolu tamit duñ ci amal soññee ndax ku am ñu mel hmm. nii si sa dëkk waaw ñoo xam ne presque dañuy wax ni drapeau Thiès la ñuy yor uh-huh. di ko hmm. yóbbu ci feneen di tiitalu parce que ñu ci bari bu njëkk hmm. dañ daan xaar waa Dakar ñëw fii Thiès bégal doomi Thiès yi tey bu ñu demee ba doomi Thiès bëgg a jógee Thiès ba dernière minute leen di xaar mooy li nga wax rek suñ xaarim xam nga dafa dëkk ba ñu nekk moom turam du Fallou Ngom boo ne woon Fallou Ngom dem YouTube def Fallou Ngom mën naam doo am yi mbiram da ngay def Fallou Thiès Fallou Thiès kon moom turu Thiès lay représenté mhm. moom ak ñu mel ni moom lu ci mel ni Pam Ndiaye Kara mhm. ñu mel ni moom turu Thiès la ñuy représenté mhm. kon loolu pour ñun yoon la tey bu ñu amee bis yu mel noonu. mais le maire de Thiès. war na réagir yenn responsable yi war nañ réagir. Mm. am na ci doon réagir mais comme li nga wax rek parfois yéex a réaction bi day am. parce que première édition boobu. Mm. ñun mooy li ma la wax 30 heures la. Mm. mujj gi dañoo génnaawaat xaalis. fay beneen heure supplémentaire. pour bañ suñu suñu suñu événement xaw a gàtt. xaw a gàtt waaw temps bi xaw a gàtt. bi xaw a gàtt. loolu moo tax. moo tax ñun chaque jour rek la ñuy wax ba ci ñuy yëngu ci zaar yi ba ci mbëri sax souvent da gis ñuy déplorer loolu mhm. loolu ñu ciy gën a soñ rek ndax nit bu nekkee ci sa gox mhm. yow tey bu génnee mën nañu yow la génnal mhm. que ça soit muy maire wala koo xamante ni politicien wala ku siiw ñoom la ñuy génnal loolu nag am na koo xamante ni macha allah yàgg nañ cee gunde muy Abdou Mbow wax dëgg fa yàlla suñu premier Sorano moom moom def na ci lu baree ba pare ñëw teewal ñu wax dëgg fa yàlla suñu ñaari loxoom. macha allah waaw docteur Ndiaye tamit deuxième bi. teg na ci loxo. Talla Sylla teg na ci loxo. Pape Amadou Ndiaye. Pape Amadou Ndiaye mooy docteur Ndiaye waaw moom tamit deuxième deuxième de la ministre de l'artisanat mm-hmm. bi. Mm-hmm. teg na ci loxo. waaw loolu comme li nga wax rek day doon benn benn benn. wàllu bu ñuy wootee pour ñi nga xamante ni dañoo mel ni mat sax ndax mm. sëñ Cheikh da mat ndax mm-hmm. bu ñu xoolee euh, ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu yeneen fànn wi mm-hmm. ah. soxlaa salle yu mel noonu da gis benn nit mën a taxaw benn autorité fayal lépp ba maye maye sax billet yi maye bi nit ñi ñëw dugg ñi nag jara may loolu ñun suñu dëkk bi am na ñu mel noonu am na ñoo xam ne fay fay fay grand théâtre du dara ci ñoom hmm. am nañ ñoo xam ne fay Sorano du dara ci ñoom ah, hmm. gratuite jël ay hmm. car aussi tamit teg ko nit ñi kat ñoo bëgg waaw ñi ñoo bëgg sëñ Fallou Thiès dem leen ngeen gunge ko ci lii muy def ndax diine lay waaw loolu lu jot a wax loolu moom mooy li nga wax rek lu a wax boo gisee sax le fait que ñu indiwaat ko fii mooy tey parfois dafa am yenn coono yoo ci daj dañ ciy am satisfaction nag. parce que lépp loo gis expérience expérience vécue la. Mhm. mooy boo defee benn événement suñu premier événement Sorano bi ñu def. bi ñu toogee di nuyuwaale de passage maa aussi Cissé bu TFM. Mhm. da cee jàpp trop. mais bi ñu defee ba pare ci côté organisation bi ca lendemain dañoo dem këram. maa aussi Cissé nag soppay sëñ Fallou la. kii bi mu am ci festival Salam. waaw c'est à maa aussi Cissé ak Mara Dieng. parce que moom première euh, édition bi mu demoon. Euh, 2016 festival Salam. jàngoon na ci. mais bi mu paree ci journée culture bi. maaraadien ci boppam moo wañ loxo Mansour ni ko kii fu mu jaar ñëw boo xaat ci. journée culture bi mu bi ñu defoon grand théâtre boobu sax Ekapla la defoon yóbbu ñu woon xiin. waaw moo tax moom Mansour Cissé moo ñëw. toog wax ñu nag événement nii nii lay demee. certes amoo leen jàppale mais mu génne lacune yi erreur yi ci am yëpp. moo tax deuxième bi sax moo gën a moo gën a. moo gën a moo gën a réussir moo gën a réussir ñun. macha allah moo gën a réussir. tamit jaadu na ndax nit lu muy def. di ko soog a def waaw il mu ñàkk ay du ñàkk ay faay. mais bu koy defaat. Mhm. ak yenn conseil ak yenn accompagnement bi dina tax mu gën a mhm. réussir. gën a réussir loolu lu am solo la la demee. mooy comme ni nga ko waxee rek. mooy ñii moom dañoo mérito jàppale. parce que ñaar dafa am. dafa am ñaari fànn li ñuy wax rek àdduna parfois boo nekkul ci genre yaa ngi ci pool beneen côté bi képp ku bëgg a def dara di gis koo xamante ni da lay fayal saal hmm. la sax ay ticket wala may la may la ay ticket mais ñii nag ñoo a jàppale ñii nga xam te ne dañuy tagg Seydina Mohamed tagg suñu mag yu baax yi te Thiès nag wax dëgg fa yàlla dëkk lool la hmm. dëkk culture la mais hmm. la moom boo xoolee képp koo xamante ni da nga yëngu ci wàllu diine ñun jàppale jàppale la ba nga sentir ni jàppale nañ loolu mooy li gën ah, mais parfois loolu moom dañ koy xaw a déplorer loolu mooy li gën sëñ Cheikh am na solo jàngat bi am na solo lool euh, soññee bi aussi tamit autorités yi ñu bàyyi ko xel euh, seen i doom lañ waaye ay nit lañ ñoo xam ne dañuy euh, jël drapeau Thiès di ko yóbbu ci yeneen raison xam ngeen ni grand théâtre wala Sorano yombul waaye buñ koy def xam ni Thiès am na lu fi nekk moo tax ñoom ñi am initiative def def ko parce ku dem ba am soppe fu nekk ci àdduna ñu lay woo fu nekk nga fay dem di yëkkati baatu zikrullah loolu dafay mel waaye euh, sa raison ngay yóbbu di wane nii euh, tey am na beneen développement boo xam ne am na fi euh, sëñ Fallou gis nga ni sëñ Cheikh dafay exposé bi am na solo am naa danaa ñëwaat ak moom ci programme bi la deux incha allah waaye sëñ Fallou grand théâtre nga song ko noonu ah keroog dafa naa am na ay way yu bees yoo fa yóbbu de. waaw loolu moom mënul ñàkk. Ah, ah. parce que su fekkee ni da yàlla dafa daf la booleeg ay soppe. Mm-hmm. booleel ay mbokki taalibe yoo xam ni. Mm-hmm. Euh, lu jiitu ngay yëngu xamuñu la woon. Mhm. bi nu la xamee mooy bi ngay yëngu. te ci li ngay yëngu lan la xamee. Mhm. kon day baax saa su nekk li ñuy xaar ci yow. Mhm. Euh, ñuy gis plus. waaw maanaam euh, ngay góor góorgóorlu ba di leen satisfaire ci li ngay def. nga xam ne saa buñ la déggee rek ñu am mbégte ci yow. moo tax édition yi ñu ciy def yëpp wax dëgg yàlla saa bu ñuy demit dinañ préparer ndax comme ci wàllu woowu la ñuy mooy sunu domaine ñu xam nu ci. saa bu ñuy dem dinañ préparer ci ay tagg yoo xamante ni. bu ñu demee di ko fa yëkkati. Mm-hmm. ña koy déglu danañ am mbégte. Mm-hmm. Euh, aussi itam danañ am satisfaction ca la ñuy dégg. Mm-hmm. nga xam ni maanaam nit ki du ñëw ndax même bu fa nekkoon wayunu waaye di waxtaan ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñuy waxtaan ci Cheikhul Khadim. su ci suñu xalaat xam nañ ni ña fa ñëw danañu am mbégte. danañ am mbégte waaw waaye nag comme itam euh, ci li ñu xamee mooy di yëkkati ñu di ñu déglu seen euh, xol di bég. Mhm. moo tax saa bu ñuy demit dañ koy préparer euh, bu baax a baax a baax. ci mhm. wàllu xeetu zikar bu ci nekk. xam naa bu ñu ci delloo tuuti rek. mën nga ñu fàttali keroog ci li nga yi nga yóbbu. waa bu dee yi ma yóbbu bu ci mel ni jaajëf jaajëf bokk na ci. ma dellu jukk fas yéene gërëm ka yelloo jaajëf jaajëf abdul xadimi nabiyoo ku nekk war ni ko jaajëf jaajëf amul morom dadi kenn ku ka jarjëf ka ko jaajëf guddi gi rañaan nga teral yonen ni ko jaajëf jaajëf alayka buur ba ko wax yonen ni ko jaajëf jaajëf attaxiyaatu lillahi wa zakkiyaatu ni ki nga neelam dolli ko leer ni ko jaajëf jaajëf naa ma fal muhammadu mi fal mahmudu mee ni ko jaajëf jaajëf yaa am ci man li am tey kenn dootulam ji jaajëf jaajëf ku dul ka dem ma yomba liggéey ba am say jaajëf jaajëf jaajëf Sëriñ Bamba jaajëf jaajëf Xasan Mbàkke jaajëf jaajëf Sëriñ Bamba jaajëf jaajëf Xasan Mbàkke jaajëf boobu ci la bokk <laughs> ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yu yéeme dafa xajul ci waaw yu yéeme yu yéeme waaye bari na daal waaw bari na damay bëgg sax ñu denc ko ndax <laughs> comme dañoo jub événement bi incha allah yu ci bari dañ ko war a gën a yeesalaat indiwaat ko mbir ci soppe yi incha allah le deux incha allah sëñ Fallou wàcc na yu bees waaye damay bëgg sax fi mu yu weesu rek nañ ko indi yu weesu waaye yi nekk suñu kanam moom sëñ Fallou incha allah dañ koy <laughs> dafay am beneen euh, secret boo xam ne dafay nekk ci say way euh, ñu bari dañuy wax ne sëñ Fallou buy way seen xel day dem ci wayu indo mm-hmm. waaw ñu bari dañu daan baat bi moom dafa indo waaw sëñ Fallou surtout bi lan la moom moo am intention boobu wala. waaw xam nga euh, ni ma ko junjoo sànq rek. Ah. Euh, bokk na ci. Ah. maanaam euh, sunu bunt ci Cheikhul Khadim muy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. Ah, ku ne yaa ngi gis maanaam ni muy jàngale Serigne Touba. dëgg la maanaam dafay jàngale Serigne Touba ci fànn bu ne. ba ci tagg yi muy def moo xam woy yi muy def ci mbind mi. ak ci kàddu gi yëpp. <laughs> daf ci euh, maanaam lim ci jubluwaay bi dëgg mooy di ci jàngale. Mm-hmm. Euh, Serigne Touba ngir ndaw ñi. gën a mën a jariñu ci Serigne bi. waaye gën a mën a xintawoo Serigne bi. Mm-hmm. ngir man di yër am mbindam mm-hmm. ndax léeg-léeg mu jël bayit euh, woy ko comme léeg-léeg xale. dafay bëgg di am yu muy wayantu wala dara. nga xam ne bu ko déggee dina koy wayantu ba mokkalaale. dina ko dina ko mën a teel a dégg daal. waaw mokkalaale ci bayitu Serigne Touba. Ah, moo xam mu doon tagg wala wala yu ni mel moom nag. Euh, yu ci bari ci ay xeetu waynam mm-hmm. da nga ciy sentir euh, maanaam mm-hmm. musique orientale hmm. maanaam gamme orientale daal hmm. lu mel ni lu mu xaw a nduru inde wala mu xaw a nduru arabe hmm. ci côté benn fànn euh, loolu bokk na ci li tax ñuy euh, suñuy bu noo déggee rek mu mel noonu bi ci des it mooy al gi nga xam ni fa la jànge maa ngi nuyu sëñ Fallou Bousso euh, nga xam ni mooy mudir ba ak waa école ba yépp wax dëgg yàlla foofa it Euh, euh, troupe masraxiya bi nga xam ni maanaam dañ daan yëngu ci wàllu culture daan def théâtre ak ballet ak yeneen yooyu foofa lu jëmoon ci wàllu way it man lañ ko dénkoon waaw man maa doonoon waykat bi maa doonoon saayir bi nga xam ni euh, dan fa daan am ay woy woy yu bari nag yoo xam ne ndax bi may ñëw daanan woy mais way yi itam yooya dafa xawoon a comme yenn way kii yi ni mu mel daal nga xam ni comme genre xawaare yeeg xeet ah, yooyu noonu waaw lay xaw a nduru daal ah, ah. waaye man bi ma ñëwee nag dama ko daal di révolutionné ba nga xamante ni mm-hmm. dana doon na méngoo ak aussi itam euh, école bi parce que bu ne école arabe mm-hmm. te bind yéen fay maanaam woy yi muy doon ay woyo en arabe aussi itam mm-hmm. dafay baax nga koy xaw a woyin ci euh, gaamu arab su ko defee itam comme dafa amoon ay arabisants yu fa daan jàngale mhm. li ngay wax ñu teel ko mën a comprendre. Mhm. parce que itam mu mën a am xam nga. dëppoo seen culture waaw macha allah am na solo ma taxoon daan euh, woye bu ndee yëkkati rek. ñu nuy nduróoleeg Inde. wala ci ci arab yi am na solo. am na solo xam naa ci sa biiri kàddu dégg nañ ci euh, baat yu bari muy mel ni sëñ Fallou moom mu ngi jàng. wala bi mu bàyyee jàng yàggul. loolu bu ñu ko déggee ni sëñ Fallou moom ab jàngkat xam nañ ne élèves sëñ Cheikh amul jot daanaka bu jógee école bu ñëwee tuuti di waaw mu ngoog léegi diggante boobu noo ci mën a fexe ba maîtriser ci ay way ba fu la neex ci ay way la nga génne ko waaw xam nga lépp rek dafay dépendre ci euh, ni ma la ko waxee <laughs> uh-huh. day am loo xam ni euh, day dem ba day ne ci yow uh-huh. don lay doon nga xam ni euh, nit ki ci li mu gimmee uh-huh. loola dafay dafay nekk ak moom pour mu yeewu du du ko jafe parce que booba ñoo ngi jàng ci école bi daan euh, xëy ak a gont waaye terewul woon aussi itam ñoo ngi doon dem ci guddi àjjuma yi nga xamante ni booba xëy na sax njaal benn gi programme yi demeegul woon dem maanaam noo xam ne da ngay génn dëkk bi di dem di defi programme ak ñëw mm-hmm. bu weesoo euh, Louga gi nu daan dem te loola tàkkusaan la daan doon nga xam ni ñi ngi fa tàmbali woon de defi dem 2000 yaakaar naa 2007 mm-hmm. lan fa tàmbali woon di dem 2007 wala 2006 daal lan tàmbali woon di dem luga mm-hmm. nga xam ni euh, booba bu weesoo maanaam loolu amuñu woon aussi itam loo xam ni daananu tënk ci njàng mi hmm. parce que bu nu musaana war a jàng it teereewul daanaanu tëdd heure bi nu war a tëdd ba bu nu xëyee it mën a dem jàngi école. aussi bu musaa na ñëw nag ah. am na ci loo xam ne ñun xam nañ ko nag <laughs> bu nu bu nu nëbbatu tuuti maanaam ay jàng moom day guddee. waaw ah, ah, ay jàng bu fanaanul day guddee. sëñ Fallou dem fanaane ay jàng. waaw waaw mën a xëy mën a xëy 6 heures du matin. li may fàttali demaat école waaw. Euh, Oustaz Dione. Euh, Mouhamed Dione. yàlla na yàlla dolli ko taw féex. moom mu ngi nekkoon Al Azhar di fa jàngale. daa jàngale ci école tubaab bi aussi itam waaye moom la ma daan tooñee boo waxee mu ne ma bu ma musaan ñëw classe day jékki-jékki rek ne ma Fallou Ngom bi ki ma dégg yow la de. waaw maa <laughs> ko ah, man fa ma déggee ki ma dégg mu naan yaasal jalaal. <laughs> <laughs> ma ci daa daa ma ci déraillé lu bare bare bare dëgg yàlla maanaam ne nelaw woon nag. waaw euh. booba it euh, li ko sabab rek mooy. Uh-huh. Euh, maanaam yaroo ci dara. yaroo ci dara. waa boo am na mbir boo ci yaroo rek. Mm-hmm. Euh, léeg-léeg sax nga toog ni duma dem. Hmm. waaye booy rëcc di dem sax. doo ko doo ko tey ndax dafa nekk ci yow. dafa nekk ci yow dafa war a yeewu. <laughs> te dafay def le tout. <laughs> Eh. pour yow nga yee ko. Eh. waaw mooy tax léeg-léeg euh, mu daan demee noonu waaye nag wax dëgg yàlla sunu borom dimbale nañu. Eh. ba yàqaluñu sunu jàng. waaye euh, daan nga ci am daan nga ci am. jafe-jafe ak famille bi. déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet bu dee ci wàllu woowu moom. alhamdulilah. waaw ndax. ci sama wayjur yëpp nag. Mhm. Euh, musuma am gàllankooru euh, ci njàng mi. Mhm. ak euh, zikar si. ndax boobu it li ma la wax rek. bisu zikar yi ci ëpp samedi lay doon ak dimanche mhm. mbaa ajjuma te bis yooyu duñu ko jàngi day fekk ñu nekk ci kër gi booba moo daan tax xëy na jafe-jafe yooyu duñ ko am bi ci des it mooy bu nu waree jàngi dunu bàyyi ñuy dem di euh, dem fenn maanaam boo waree jàngi. moom boo waree jàngi école. waaw dañ naan la demal nga jàngi école waaw. Ah. parce que boobu mooy li ma la wax <laughs> ci ñun. programme yi melogul woon melokaan woo xam ni da ngay mën di hmm. génn di dem ay événement yu ñu lay invité. parce que boobu àggaguñu woon ci dayo boobu. waaw waaye suñu Fallou njàng mi dafa am sew sew bu ci nekk ndax njàng mi. Hmm. njàngum école. Hmm. da ngay dem gàddu sa saak dem jàngi. Euh, daal di ñëwaat dellusiwaat ci kër gi waaye bu dee ab ja ay jàng yoo xam ni euh, sëñ Cheikh moo am benn xew-xewam. ni sëñ Fallou mii la bëgg mu wéyal ko ko. Uh-huh. te sëñ Fallou xam ne bu demee foofa mën na faa uh-huh. amee poste bu am am am mën na ko faa jëlee. daw jàng école ñu dem ca jàng yooyu. <laughs> moom laa la wax ni la. <laughs> Uh-huh. Uh, xëy na li ci doon sutura suñu borom. Uh-huh. mooy uh, ci dayo boobu. Uh-huh. jamono bi ñuy nekk ci école bi dañ faa àggagul woon. maanaam lu war a tax nit ki. ndax njàng mi fi mu gën a tasaaroo ci ñun nag. ba nu commencé di uh, invité. mooy deux 2009 2010 2011 te man 2011 laa jeexal. macha allah maanaam diggante 2010 2011. waaw ci la ci la ci la ci la ci sunu borom def ma am baccalauréat foofu ca Al Azhar. ndeysaan macha allah xam ni wax dëgg yàlla. bi loolu jàllee it ñu amoon ay nësër. Mm-hmm. Euh, wayjur yi amoon yéene it. ñu continuer sunum njàng. ci biti réew. Mm-hmm. ba doon ci dox. ba mu sori woon loolu itam waaye yàlla def fan waroon a dem ay yëngu-yëngu am fa. Mm-hmm. nga xam ni euh, loola bokk na. ci li yokk a tax euh, mujj nu dem. waaye moment boobu it sunu borom def tur wi itam daal di tasaaroo. li nu doon def it daal di tasaaroo. nga xam ni euh, amatunu euh, maanaam jot gu gu toll ni da ngay toog bañ a def dara ndax saa su nekk ñi ngi doon dem di def maanaam ci cant yi ñu lay invité ak jàng yi ñu lay invité nga di fa dem. Euh, tax na xëy na loolu sax moo gàllankoor. Mhm. sunu ñàkk génn. ndax fa nu bëggoon a dem. ba mu sottiwul te euh, yëngu-yëngu muy wàllu ger di bi am fa. xëy na su fekkontoon ni doxaatoon nañ ci yeneen i e, bërëb. Hmm. sunu borom mënoon naa def maanaam ñu mënoon a dem ci yeneen i bërëb. waaye dogalub sunu borom. Hmm. E, ak itam lu mu namm ci jàmmam hmm. e, ndax nit ki yéene rek nga am ak sabablu. waaye li sunu borom di dogal ci yow nag moom ala kulli xaal loolu mooy am. Ah, am na solo sañ Fallou xam naa li tax sax mu insister ci question boobu. dafay bari lu ñuy gis sëñ Cheikh. boo xoolee daanaka ndaw ñi léeg-léeg bu ñu duggee ci am njàng rek. koom bi nga ciy jëlee day tax boo amoon métier sax da nga koy bàyyi. waaw day tax boo amoon métier sax te ci loolu sax maanaam nga ciy gën a ñaax. maanaam sunu rakk yeeg yu ni mel. mooy boo nekkee ci mu jàng. boo tolloo ci mu jàng. te war a jàng. Mm. waaw na jàng. jàngal dëgg la na nga jàng parce que jàng moomu lim la mën a dimbalee ëllëg. Mm-hmm. dana la dimbali ci bu fekkee da ngay doonaat ab jàngkat wala loo mënti doon hmm. jàng moomu dala ciy dimbali. Hmm. xam naa ñaari jàng la ñuy wax. bu saa boo koy waxee rek dégg nga préciser. parce que jàngi école. jàng ni ngay jàng ci daara ji. wala ci école waaw kay waaw. jamono bi ci tolloo. Hmm. maanaam da nga ko yow maanaam na nga ci góorgóorlu defe ko ni mu waree. dëgg ndax njàng moomu dana la dimbali ba bis booy jàng njàng mii di njàngum xasaayit wala zikar wala bu mu ci mënti doon. waaw maanaam njàng mële. da lay dimbali ci njàng mi benn. li ngay wax di ko xam. Mm-hmm. waaw surtout. li ngay wax. Mm-hmm. na ko borom mbind ma bindee. Mm-hmm. noona nga koy waxee. doo ko yàlla ko mën a may nag. waaw mooy njàng male. dëgg la bi ci des it dana la ubbi ci wàllum xel ak xalaat. ba doo doon jaahil te li ngay defit di nga ko xam. dëgg la ba ca yokk mooy que euh, lépp loo xamante ni. wala képp koo xam ne sunu borom boole na la ak moom. danga nga mën a maslaxa da xam àdduna danga xam na ngay jëflante. Mm-hmm. loolu nag am njàng. da ciy mm-hmm. dimbali nit. Mm-hmm. xëy na am na ñu jàngul sunu borom defal leen tawféex jooju waaye nag li ci gën. mooy nga fexee jàng. te itam moment bi nga ci tolloo. nga def ko yàggul. day wees nga nekkaat ci leneen. macha allah macha allah macha allah message baa ngi noonu jàll na xam naa maa ngi ciy ndokkalee sama rakk sama xarit Serigne Mbaye Mboup. Euh, jàngkatu xasida euh, li ñuy waxtaanee daf may fàttali lu bari ci moom waaw ndax euh, toll na bi mu gën a féete gone. xam naa bu ma déggee dina xam bu baax li may li may wax. Euh, way juróom yi dañ ma daan wax naan xaarim ba nee ko wax nee ko wax muy jàngi <laughs> na dem bu demee ba jàngi ba ñëw nag. ba ñu ñu jàngum xasaay ndax maamam ci la nekk. loolu moom ñu ngi sunu way juru euh, sekk ñu ñaanal ko bu baax. sunu borom yeesal yërmande ci kawam waaye ba tey wax na ma kàddu yu mel na nu ma koy wax Serigne Mbaye Mbuub Serigne Mbaye daan toppul kàddu yooyu moom it macha allah. ba tey jii àdduna si yëpp xam nañ ko ci xasida yi kon ñu ko ci ndokkale bu baax xam naa ñu dugg nag ci euh, le deux incha allah. waaw waaw li nga xam ne tey ji moom moom la Thiès yëpp di xaar. waaw mooy bisub sant ak delloo njëkkal. sëñ Mouhamadou Lamine Ba mu ngi noonu. <laughs> ok maam Khadim li nga wax dégg nañu wax yi am na solo lool. comme ni nga ko waxee rek le deux bi. Uh-huh. comme li ma waxoon sànq ci bi may expliquer. Uh-huh. c'est juste pour gën a permettre waa Thiès comme ñoo doon déplacé uh-huh. ñu ñëw. ki nga xamante ne nag dañuy ñëw ba fi nga dëkk. dafa li ñuy ñaan rek mooy teel a génn. parce que guddee bi da ciy xaw am lu gàllankoor bu ñu def. Mm-hmm. Mm-hmm. li ñuy ñaan daal nit ñi mooy teel a génn. Mm-hmm. surtout waa Kër Sëñ Ablaye ba ñu dëkk. xam ni la dee moom. yàgg na am ay jàng foofu mais bëgg nañ indi innovation boo xamante ni. Mm-hmm. ci côté organisation ci côté jeu de lumière yooyu yëpp. Mm-hmm. wax dëgg fa yàlla ku fu ñëw dina xam ne li lu bees la fa. Ah. loolu daal lañ bëgg yéen boobu la ñu am. Ah, ah, ndax ku daan woote Sorano. Sorano boo ñëwee ko la woote ci sa dëkk. dëkk dafay mel ni lépp lu ñu daan gis fële sax euh, image boobu war nañ ko gisaat fii. merci lool loolu daal mooy. mooy mooy objectif dëkkandoo yi tamit mat nañoo soññ ñu teel génn. waaw ndax kuy teeru ay gan. waroo bàyyi ba gan yi ñëw waroo bàyyi waaw loo lool comme ni nga ko waxee rek. comme ah. ñooy teeru gan yi. waaw dañ leen di ñaan euh, ñu njëkk a génn di nuyu de passage euh, Père Eumeu Ndiaye. Père Eumeu Ndiaye Père Eumeu Ndiaye. mu raq la ci bere Ndiaye. ndeysaan wax dëgg fa yàlla di nit ku baax. Mm-hmm. moom buntu këram. buntu këru ñëpp la. des fois nit ñi dañ naan sax fii liñ fiy def jàng dafa bari. muy que muy sëñ sëñ Fallou Fallou Ngom mi wala Papa Ndiaye wala. ñoom Ngañ moo moo moo nekk kër gi boo jubee euh, barab bi rek. barab bi mooy kër gi jàkkaarloo case case de santé bi. moom wax dëgg fa yàlla gars seen fay. waaw képp ku ñëw dañ naan la kii baa ngoog defal. waaw wax dëgg fa yàlla bu fekkoon dañoo ñëw ñu gàntal tamit dañ leen di comprendre. parce que am na rek. Mm-hmm. mën na am benn sentiment booy am mais wax dëgg fa yàlla melul noonu. di ko ziar di ziar doom ñoom sama copain Ali Ndiaye waaw waa Fara Ilou daal ñi ñi ngi waaj bis bi bu baax a baax a baax bëgg nañ daal comme yàgg nañ tëgg waaw ah, barab boobu barab boobu noonu xatul ci sëñ Fallou barab boobu waaw waaw xam nga xa xan na mais mooy comme li ñuy wax rek mooy li tax li sabab barab boobu hmm. mooy première fois bi ñi ko def événement mu réussir ba ñu am fitu dem Sorano fala woon. Hmm. ñii dañu bëgg bu ñu jógee fii au lieu de Sorano dañuy dem Grand Théâtre. Ah. voilà macha allah. objectif bi lool la. Ah. ñëw ñu ci barab bi rek. Hmm. parce que mënoon nañu defaat xam nañ yoon bi yàgg nañu organiser Sorano xam nañ yoon bi. waaw mën nañ defaat même Sorano. Hmm. mais parfois day am événement yoo xamante ni. comme jóge Thiès. di dem Dakar day métti parfois da ngay yërëm ñi nga xamante ni foo leen woo ñu wuy si la ñoo ñu ngay sóoraale mais bu doon ñu ni kepp ñu ak waa Faralu Soraam ak Fallou Thiès kepp mhm. tëgg nañ Sorano xam nañ circuit yi xam nañ lépp mhm. plan comme bi ci war yëpp chaque fois saa ñu ko defee macha allah mais dañoo bëgg bii nii bu ñu ñëwaatee fii mhm. def ko fan ko defoon mu jigaat ñu bu ñu mm. am pitu jéggi saraanoo dem def ko grand théâtre am na solo loolu daal mooy suñu mëbët am na solo waaw loolu suñu bis bi naka naka ngeen koy tàmbalee ci suba gi lay door walla ci ngoon gi lay door wala waxtu lay waaw li ñu koy tàmbalee nag mooy xam nga comme day foo xamante ni plein la mm. dafa am benn organisation bu ca bu ca bu ca war mm. te loolu bu ñu nee à partir de vendredi dañ ci commencé dox. vendredi vendredi dañ commencé. indi vendredi mooy nekk le premier. mooy le premier dañu indi matériel yooyu. parce que dafa dañ fa bëgg a def lu mus lu mucc ayib lu fa musul am. loolu daal mooy yéene bi loolu lañ fa bëgg a def. waaw côté ci côté podium ak. côté jeu de lumière yëpp dañ fa bëgg a def da mhm. ngeen ah, loolu loolu yëkkati rek ko war a xeeb. waaw loo yëkkati da ko war a xeeb. voilà dafa am a moo tax waa Fara salaam ku ci mel ni jëwriñ Lamp Fall Lamp Megere moom sax moo waroon toog jëwriñ Lamp la Modou Diop ah. moom moom tamit def na ci liggéey ba am solo comme man mooy ànd ak sëñ di def yu bari lépp la nga xamante ku ci mel ni carte yooyu yëpp mm. Bamba Soog bi nga xamante moom yàgg na ak sëñ Fallou ñëpp xam nañ ko ak sëñ Fallou mm. ba bi muy dem ay TFM ñu koy organiser ñu koy invité ay émission sax li ci mm. ëpp sëñ lay àndal ak lam Bamba Sock moomu daanaka yëpp tamit moom mm. ñu koy nuyu <laughs> <laughs> bi maam mm-hmm. mm-hmm. yëpp jàngu alxuraan bi teg kii yooyu yëpp dañ ko def mm-hmm. bëgg nañ daal mu teel a mm-hmm. waaw teel a bi nag niñ ciy ñaan mooy li ma wax sànq mm-hmm. waa kër sëñ la ñuy ñaan ñu teel a génn comme li nga ko wax rek ndax ñoom ñoo war a dalal gan yi ñoo war a teeru gan yi waa Dakar ñu ngi koy waaj oh, waa Thiès ñu ngi koy waaj waa Mbacke waa Touba ñëpp a ngi koy waaj waaw kon daal ñu ngi ciy woo euh, bis bi waaye damay bëgg sëñ Fallou waaw sëñ Fallou ci ñooñu ndax euh, xam naa ne bu ma ci déggee gaynde ak baara moom <laughs> damay mel ni rek moom Euh, bisam la gaynde ak baara moom moom fi mu ne nii lu ñu laal ci sëñ baara rek moom mu jàpp ni moom lañ ko laalal waaw ah, ndax taxawaay bu am solo bi nga xam ne am na ko ci euh, njabootuk sëñ baara ñu nuyu sëriñ Mbàkke Madina euh, moom sëñ Abdul Xaadim moom sëriñ baara ñu nuyu ko bu baax siyaare ko bu baax jox ko wàcc waayam waaye nuyu Cheikh Bada Ndiaye moom suñu xarit la ah, suñu xarit la bu yàgg te mu xam ko lool jàpp ko ñu nit ñu jàpp ko ah, ñu nuyu ko bu baax ziar ko dégg nañ ko ci annonce bi bu ko defee ñi nga fas yéene àndal ci bis bi nga xam ndikkoli Cheikh Mamadou Lamine Bara waaw bis bi de euh, ni nga ko waxee rek euh, sëñ Xaadim mm-hmm. euh, bisub sant la mm-hmm. ak delloo njukkal Cheikh Mouhamad Lamine Bara li ko sabab nag mooy ni nu ko waxee ci ndorte li mm-hmm. sëñ baara dafa di leer ci Cheikhul Xaadim doon jëmm ju yéeme te yàlla def damay wax ni moom de xam naa ni aw turam euh, bëri na lu mu yokk ci man. Mm-hmm. Ah, ndax bokk na ci euh, maanaam zikar bi ma bi gën a la bi bi bi gënoon a lancé. Mm-hmm. sama tur te mm-hmm. booba euh, jëmm ji sax xamuñu ko. boobu bokk na ci zikar boo xamante ni dañ ci doon tudd aw turam. te ñu tàmbale woon ko ci yaa Cheikh Ahmad al nga xam ni euh, dañuy dem ba ci biir ñuy wax ni sëñ Bam Cheikh Bamba bàyyu baara. Mm-hmm. di répété turu baara nag. ndeysaan est-ce doo ci way tuuti rek. ñu gën a xam li nga <laughs> way bindoo woon incha allah. Euh, boobu mooy bind naan. <laughs> yaa Cheikh Ahmad al Khadim. yaa Cheikh Ahmad al Khadim. Bamba yaa Cheikh Ahmad al Khadim. yaa Cheikh Ahmad al Khadim. Bamba yaa Cheikh Ahmad al Khadim. yaa Cheikh. Cheikh Ahmad al Khadim Cheikh Bamba Baye Moustapha Cheikhul Khadim Bamba Baye Moustapha Cheikhul Khadim Cheikh Bamba Baye Moustapha Cheikhul Khadim Ahmad Bamba Baye Moustapha Cheikhul Khadim Cheikh Bamba Baye Fallilo Cheikhul Khadim Bamba Baye Fallilo Cheikhul Khadim Cheikh Bamba Baye Barak baara baara bamba baayu baara Cheikhul Khadim bamba baayu baara baara baara bamba baayu baara Cheikhul Khadim way Ahmad al Khadim ya Ahmad al macha waaw eh, <laughs> bii. waaw nga ni bokk na ci li la gën a lancé. bokk na ci nga xam ni moom. Euh, ak Moustapha yi sunu géer moom la àndaloon. Mm-hmm. ak bismillahi may fasati Bamba. ndeysaan waaw ñett yii moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. tey turu Fallou Thiès fu mu yegg rek. Mm-hmm. ñoo yii bokk na ci li ko fa. moo waral nga ni da koy delloo njukkal. waaw moo tax nag euh, bi nu gëjee yëngutu. ba yegsi ci euh, jamono bi nga xam ni at yi ñoo ngi doon yëngu waaye bu ma nee gëj a yëngu maanaam yëngu ci ànd ak xiin yi wala woote bés yi. ndax booba maanaam diir bi. Mhm. fekk danoo yeesalaatoon. Mhm. li ñuy def ci njàngum xasaayit yi. waaw mhm. nga xam ni jëloon maanaam li nu dañ ko tàmbalee ci taysiirul asiir nga xam ni. xasida euh, googu la ñu jël. Mm-hmm. malgré que xasida gu gudd la. Mm-hmm. waaye dañ ko rajas muy tombeek màggalu Tuuba. bu daaw. Mm-hmm. nga xam ni def nañ ci taysirul asir. Euh, defaat fi wakaana xaqan aleyna nasrul muminin ak sukkuri li rabbil karimin mhm. kaana shakara boobu it yemul ci sikkar waaw day day sikkar waaye ni la mhm. njàng mi daf lay dimbali ah. njàngum maanaam njànguma njàngum daara ja daara daf lay dimbali parce que daf lay permettre yit nga mën a jàng xasaay di def ci sa kéem kàttan ba di koo mën di waxee ni nu ko bindee mu doon njàng mu leer fi mu ne nii bëri na ñoo xam ni mhm. bi nu déggee loolu mhm. dañ ma kon yow lan ko doon def ci ci ci njàng mi waaw <laughs> ma leen nag dafa fekk ni nit ku nekk ah, ak li suñu borom dogal ci moom fi mu war a tàmbalee fi mu war a tàmbalee fi mu war a fi mu war a euh, jëm waaye damay wax ni ñun suñu mujj mhm. lële la ndeysaan mooy njàngum xasaay xasaay kon mooy doon sunu mujj. dëgg la nit ku nekk nag dafay am fu mu tàmbalee mm. waaye dafay am fu mu mujj. li ñuy ñaan te sunu boroom euh, mu kàttanal lu ci. te sax suñ Fallou ah. dugguma la waaye njàng mi boo seetloo njàng moom léegi. Mm-hmm. njàng mu nekk ak barabam. dëgg la waaw loolu moo tax. xam nga boo xoolee njàngum xasaay. li li li li li li li arab naan li kulli maqaanin maqaal damay wax ni. Mm. am na loolu mën nga ko ci kanamu sëñ Muntaxa waaw. am na loolu mën nga ko fu dul ci kanamu sëñ Muntaxa dëgg la ndax tey euh, zikar mhm. lu baax a baax la mhm. te bëri na ndaw ñoo xamante ni ginnaaw yàlla moo tax defiwunu leneen mhm. dégluwunu ji déglu jiwunu leneen itam zikar si ndax fekkoon na ay ndaw yoo xamante ni dañ daan dem ci dansin yi di dem ci yeneen ak yeneen ak yeneen mm-hmm. waaye loolu buñ ko bàyyee yàlla ak zikar la ndax nit it boo ko bëggee dimbali da ngay koy fekk ja fa mu nekk nga mën koo récupérer mm-hmm, dëgg la euh, yooya nag mm-hmm. maanaam ak la ñuy àndal tey bu sëñ Muntaxa toogoon bu ñuy yëkkati xasida rek la ñuy mën a yëkkati du mën a ànd ak yenn yi la loola moo tax te man dama di koo xam ni damaa bëgg fu ma mën di dem ñu mën a teewlu sama kàddu ndeysaan macha allah waaw maanaam sunu borom nag dimbali nanu ba nu yegg foofu mooy mën na noo wax xasaayit yi mm-hmm. tey mën na noo wax leneen itam kon fu nu teew fu nekk rek mm-hmm. danoo war a yëkkati àddu. ba nit ñi xam ni kat euh, moom mii kat wax dëgg yàlla euh, lii muy def defantuwu ko. moo tax ñu def taysirul asir wa kaana xaqan alayna it def nan ko. mawaahibu naafia def nga ko ay album génn. waaw waaw yooyu yooyu génn fi na ni mawaahibu bi. moom euh, ci ci la deux bi incha allah. xam naa ni buñ ko ci lancé wul it bala ñuy yegg ci koor gi dinañ ko ci lancé. ndax enregistré nañ ko ba pare. macha fi mu ne ñoo ngi ci. ay ay rajas la ay rajas la ay yooyu yëpp yi ma mujj def yëpp damay doxe ci ñaari tànk yi mhm. maanaam di yëngu ci euh, zikar si mhm. Mhm. waaye xasaayit di ci bay sunu waar nag macha allah ndax euh, boo nu dégloo it wax dëgg yàlla di nga xam ne ñun ñi dana war a jàng xasida te damay wax ni euh, koo xam ne danoo jëloon sa wéyjur wu jigéen ah. jox ko sa wéyjur wu góor addiyee sëñ Tuubaa boo ci jàngee xasida war nga koo caa jàng boo jàngul xasida it war nga koo jàng ndax doomi àddiya nga kon nag loolu moo tax ñu di ci góorgóorlu di ci ah, jéem a bay xam naa nga dikkaat rek foofu parenthèse ah, ah. nga mujjee ci sëriñ baara ji waaw oh, waaw sëñ baara ji moom euh, ni ma ko waxee rek nga xam ni comme moom yaatal na lu bari ci ñun moo tax euh, moom it ci rajas yi ba tey mu nawirul bunyaan bi nga xam ni xasida la gu gu yaatu gu hmm. gudd hmm. méngoo ak Taysirul Asir mhm. moom it euh, dama ko jàng ci bi Mbàkke Kajoor gi nga xamante ni euh, boobu mi ngi jub si xasida googu it wax dëgg yàlla booba Seex de mi ngay tudd mhm. moom laay waxtaanal mu ne man ak sëñ bi Taysirul Asir bi nga jàng mhm. dafa nduroo lool ak mu Munawwirul Bunyaan boo ko ko jàngoon dana am solo ma ne ko danaa ko jàng ndax damaa yàgg am yéene itam euh, maanaam def ci sëñ Baara loo xam ni Bada nag daa xamul ngi noonu ndeysaan ngi noonu mi ngi noonu <laughs> mu soññ ma ci nag euh, ñu def ko it wax dëgg yàlla njabootu sëñ Baare gépp di ko bëggee di nu ñaanal waaw muy mu nawirul bunyaan bi yàggul dara ci la nu defaat euh, xasida gi nga xam ni mooy bi ànd ak xiin yi ah, nga xam ni moom it wax dëgg yàlla ci lañ ko génnee maanaam ñëpp bëggee ko daal mhm. nga xam ni it wax dëgg yàlla euh, bi nu ci jugee nag lan ni comme gëjoon nanoo def bés mhm. te ñoo ngi ko doon waajal boobu ba mhm. léegi kon nan ko def bës nag te delloo ci njukkal Cheikh Mouhamad Lamine Bara ndax ci moom lanu jaare ba mën a taxawal euh, bés boobu ginnaaw bi mu doonee bisub sant ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim rasul waaye nag di ko ci delloo njukkal euh, nga xam ni wax dëgg yàlla bés bi moom euh, bësam la ah, waaw bësam la njabootam gi yëpp itam wax dëgg yàlla ñoo ngi leen koy yëgal ak képp koo xam ne rek yaa ngi euh, ndax ñëpp am mbégte ci seexul xadim te kuy béggee seexul xadim rek mooy béggee seex Mouhamad Lamine Bara kon ñoom ñoo ngi koy yëgal ñëpp mm-hmm. di am yéene itam ànd ko ñëpp waaw ñi nekk ci biir dëkk bi ak ñi nekkul ci biir dëkk bi wax dëgg yàlla ndax mm-hmm. lu baax moom mm-hmm. la ma Cheikh Ahmadou Kara waxoon rek ne ma lu baax des koy taw yi waaw doo ko xatal moo tax taw yi gi it mooy waral muy demee nii muy demee waaw nga xam ni ëllëg ak si biir mën na euh, demaat ci keneen ak mm. euh, ci feneen su ko defee ñi ngi koy ñi ngi koy yaatal ñëpp mm. euh, rawatina nag ñi nga xam ni ñoom la ñu bokkal kër Cheikh Abdallahi Yaqin nga xam ni damay wax ni mm. fu nit jugee ñëw ci bis bi neex nanu hmm. waaw ku nu fa wuy si neex nanu hmm. waaye it bu nu sañoon moom bu nu tourné rek hmm. euh, jàkkaarloog ñi nga xam ne nag ñooy waa ndax nit ku nekk amul lu dul fa mu bokk amul lu dul fa mu dul fa mu dëkk itam te sunu lépp foofoo kon ñi ngi koy yëgal ñëpp bu nu sañoon kër par kër la ñuy dugg. di leen ko wax. waaye léeg-léeg matale moom daa yombut. waaw waaye ku jàkkaarloog yow ku jàkkaarloog man daal sa invitation la maa ngi lay woo di la yëgal di wax ni daal. maa amoon yéenay dem ci ku ne. waxal la sa bopp bés bi. waaye nag euh, dajal moom daa yombut. kon ku ma yegg seegul ci sa jëm rek. xamal ni maa ngi koy tuub di la wax ni daal bés bi sa bés la. parce que yéenay ànd ak sépp rek. sëñ Fallou nag woote bi dina yomb ndax xam naa ne ku mel ni sëñ Fallou Thiès. nga xam ne fu nekk woon nañ ko fa ci àdduna bi woo nañ ko ci quartier yi fu nekk woo nañ ko ci région yi dafa naaw bu xewlee woote def naa ku nekk sax war na koo mën a wuyu si ku ko ku mu sawoo sax wala ku ko mu sawoo ah, def naa boo ko gisee mu xewle te nga am yéene bis ah, nga woo ko ci sa programme mu ngir mu taxawul la ko ndax li muy wax ñëpp la neex te ku sañoon di nga am bisu bànneex woo Sëñ Fallou Thiès ni ko kaay taxawul ni suñu bis bi kaay yëkkal ci ñu turu yàlla yu wala kaay jàngal ñu xasida ah, tey nag bu wootee def naa woote bi la na kon ñëpp dañ koo war a wuyu si ñëpp dañ koo war a wuyu si te xam naa ni noonu lay demee ndax eh, say soppe moom tuwaarkaal la bu ko defee eh, sëñ Cheikh mhm. kàddu yu mujj yi ñu bàyyi rek am loo ci dugal. waaw bu a defee tàggatoo waale. waaw comme ni mu ko waxee rek comme ah. bis bi moom bisu dañuy delloo njukkal sëñ Mouhamadou Lamine Bara am na ñu ko dara jaale. waaw du ñàkk ñenn ñi dinañ leen euh, kii comme sëñ Bara mi nga wax léegi. waaw Guèye ak Bara. moom ci ñi dara jaale bis bi ci la bokk. Mm-hmm. Euh, sëñ Ablaye Dieye. Mm-hmm. moom tamit ñu dara jaale bis bi. ci la ci la ci la bokk. mouvement Siggi jot na mouvement Siggi jot na. Euh, Moustapha. Mm-hmm. Moustapha mi nga xamante ne mi ngi bisu ci Moustapha Diagne bijouterie Jabel bi mhm. liggéeyee foofu di jëriñ bu baax mhm. moom ci la bokk Daawda ci la bokk Fallou juuf muy ku baax koo xamante ni kër sëñ Ablaye la dëkk képp ku ko la mu ñëw jàppale la waa Arcos xam nañ ko bu baax a baax a baax mooy président Arcos moom tamit yi ngi profité de l'occasion di wax waa Arcos lépp loo xamante ni daal kër sëñ Ablaye ñoo ko tëgg ñoom kenn waru leen cee jiitu mooy suñu ASC e. moom tamit ci ñooñ la bokk Daawda di xarit ci oustaz mbay Ndiaye ñu ngi koy ziar suñu suñu suñu xalifa suñu xarit ñu ngi koy ziar moom tamit ci la bokk am na tamit benn xaritam sëñ Abdallah Diouf borom kaay baax ku ko xam xam ka ak Fallou cees yàgg na ko jàppale ci bis yu baree baree baree bëri suñu album bi ñu mujjee génne doon def journée de lancement bi Sams Prestige première kii bi moom moo ko ñu ko jënd à 200000. Hmm, première euh, exemplaire bi moom moo ko njëkk a jënd à deux cent mille nga xamante ne moom ku ko xam sëñ xame moom moom tamit ci la bokk am na tamit ay mbareen yoo xamante hmm? sëñ baara ñaan moom tamit ci la bokk sëñ baara ñaan ci la ci la ci la bokk sëñ euh, kii Touré hmm. sëñ Xaadim Touré mu sëñ Saaliw Touré ñu ngi koy ziar Touré Balla moom tamit ci jàmbaar la ko am taxawaay macha allah moom tamit jàng sëñ Ablaay day ànd ak mbooloo mu takku ñëw ci suñu tànt waaw moom xammee nañ ko foofu ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax la ku am yitte la ci mbokki taalibe yi waaw moom tamit ku am kii la ak Ousseynou Ndiaye mi nga xamante moom day faral ci ñi muy tuddee bisi mm-hmm. day am ñoo xamante kóllëre tax mu tuddee leen ko. ñii dañuy doon deret ñii dañuy doon xarit. chaque année ba ci mm. Sorano bu depuis Sorano bu njëkk ba. Mm. day am ay xaritam yoo xamante ne dañuy bokk ci parrain yi. ba mm. mu la ko ñu dara jaalee bis bi la bokk. waaw am na tamit marraines yi ñu ngi ciy woo. Euh, soxna Assou Mbacké mi nga xamante ni moom mooy. Euh, euh, soxna As Mbacke mooy première njëkkeem hmm. soxna As Mbacke Gaynde Fatma mu soxna Baali Mbacke Baala ñu ngi koy ziar bu baax moom moom ci marraine d'honneur la bokk soxna As Mbacke marraine d'honneur la bokk ak madame Sey moom tamit ñooñu ci marraine d'honneur la ñu bokk madame Sey mooy soxna maître waaw xeet maître Ousmane ah, ah, soxnaam soxna Xadijatu di yaayu bébé Sey hmm. bébé Sey moom tamit ñu ngi koy ziar di xaritu sëñ Fallou ñoom teen ñu ngi koy ziar kooku tamit ci kii la bokk xam naa ñaakul am na ñeneen ñoo xam te ni ah, Ami Fall Diop di mag mag ci moom ci kii la bokk suñu chéri awa awa awa awa awa laam di Maram sàll moom tamit ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax a baax ci marañ la bokk suñu raq mhm. suñu xarit Fat Thiam mhm. Fat Thiam tamit Fat Thiam Guèye mhm. moom tamit ñu ngi koy woo ci bis bi moom tamit ci kii la bokk Nabou Fall tamit nga xamante ni ñoom ñi mujjee wax nii muy Fat Thiam ak Nabou Fall yëpp bokkoon nañ daayira bu njëkk waaw daayira Wildaanu Muxallum bi ñu bokkoon ñoom ci lañu bokk ñoom tamit ci ñi dara jaale bis bi lañ bokk soxna Aysatu Saw mi nga xamante ni moom moo dëkk euh, suñu kër ca kaw. moom euh, suñ Saaliw la bëgg. soxna Aysatu Saw jàmbaaru suñ Tuubaa la moom. jàmbaaru suñ Tuubaa la képp ku soxna Aysatu ñu ngi lay nuyu. moom ñu koy jaar bu baax baax baax a baax. bi ma njëkkee def euh, Sorano. suñu ah. première édition. Ah. laa ko ci boole woon. waaye ba ma jógee soraano dama xëy ca suba ga hmm. ñu jokkoo ndeysaan mu ni ma daal li ma lay xamal mooy li weesu tey. Hmm. bis booy defati. Hmm. waaw ah, man de quoi man man man ma turandoo bis boobu la. moom sëñ Tuubaa rek la bëgg dëgg yàlla noonu ma ko wax rek sëñ Tuubaa rek la bëgg noonu la demee moom woote ci sëriñ bi xam naa sax euh, ñi mu tudd rek ah. mooy euh, soxna Adja mm-hmm. soxna Adja Sarax Gaydel euh, di taalibe sëñ Xaadim Lo Gaydel borom daam sëñ Xaadim Lo ñoo ngi koy ziyaara bu baax soxna Adja moom it day sama wóllëre wu yàgg boo xamante ni mën naa ni booba maa ngi ci école bi booba amaguma bakk waaw booba mu am ay taalif yoo xamante ni dafa jëm ci ku tedd ki moom itam yu muy faral di def daa ma koy yónnee wax dëgg yàlla muy soxna su baax yàgg a jàpp nag. te dañ daan def euh, at bu jot sëñ Xaadim Lo moom lan jëkk a tuddee bis bi ah, waaw ci première édition bi macha allah ak deuxième bi yëpp itam waaw ginnaaw bi nag laay dugg ci njaboot gi waaw ba bi weesu Mamour Lo mm-hmm. ak soxna Bilo ñoom lañ ci àndaloon bii nag ñu ànd ci ak soxna Adja Gaye dem ndax sëñ Xaadim it day sunu sëriñ waaye day suñu wëlëre day day day day xarit wax dëgg yàlla ak sunu jarbaat euh, mm-hmm. soxna Bintu Mbacke Dia mm-hmm. nga xam ni moom it euh, doom la ci soxna Awa Ndiaye wax dëgg yàlla di sunu jarbaat moom it euh, bis bi ci ci ci ñi nga xam ni dara jaale nan leen ko ci la bokk. Mm-hmm. ak itam euh, soxna Faat Jaxate mm-hmm. di soxna sëñ Fallou Guèye nga xam mm-hmm. sëñ Fallou moom it bis yi noo def yépp daanaka dañ koy àndee ak moom. muy sunu mag di sunu xarit di sunu lépp. nga xam ni ñoom ñooñu ak ñii nga xam ni ñoom la euh, Cheikh tudd Cheikh Talla. Mm-hmm. ñoom la ñu àndal ci bis bi wax dëgg yàlla muy bis boo xam ne daal. Mm-hmm. bisub sant la. Mm-hmm. waaye bisub delloo njukkal la. bis la boo xamante ni itam bëgg cee dundal mbokk nga xam ni xëy na sunu ko mënoon. lanu defoon ca première édition ba lañuy ñuy def. mooy ku fa teew rek. boo dee góor. ci parrain yi nga. Mhm. ku fa teew boo dee jigéen. ci marraine yi nga macha allah sunu première édition noonu la def. boobu utu nu parrain utu nu marraine. dama ni comme bis bi jàpp gi xat na. Eh. duñ ko duñ ci. waaw duñ ko tënk fenn moom mooy ku ñëw rek. Ah, am nga ci cër. waaw cër boobu lan la jox. taarkaal dëgg yàlla te loola it. noonu rek la war a demee sax am mbégte moo ah. tax loola it moo continuer ku fa ñëw xëy na dafa mënta ñàkk ñu jukki ay nit rek. sargal leen ci dara jaale leen waaye ah. ñëpp wax dëgg yàlla la am ci ñoom yéene. ñëpp it la am ci ñoom euh, yëg te kenn ku ci nekk rek ñi ngi jéem. ngir waay wi nga am ci ñu nit euh, ñu delloo la ko. dafa maanaam séddale moom dafa mënul dajandoo. waaye nag incha allah comme bés yaa ngi ci suñu ah, kanam. incha allah ku ne sa cër dem ci. xam naa bàyyi waale la rek def euh, kàddu gu mujj gi day mel ni. Euh, waaw kàddu gi moom moom mooy sant lay doon rek. dem émission bi door nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim. Ah. ba war a bay war a matal. kon alhamdulilah rek moo ciy topp. kon ñoo ngi sant yàlla bu baax di am mbégte nag bu baax ci teew gi nga xam ni teew nañ ko ci télévision bu mag bii di mm-hmm. Euh, RTT nga xam ni wax dëgg yàlla euh, bi mu juddoo mën na ni yàggul yàggul waaye nag ab taxawaayam ak itam liggéey bu ama ama am solo la ñuy def ci wàll wépp nag mhm. ak ci fànn yëpp mhm. mhm. wax dëgg yàlla rawatina nag fànn wi nga xam ni yow dangay ngay sunu wóllëre te di ko doxal mu lépp jëm ci diine te ñu nit ñuy yëngatu ci diine kon jaadu na bu nu teewee ci bërëb bi ñu sant la bu baax a baax waaye sant kilifa gi itam sant képp koo xam ni rek euh, yaa ngi yëngatu ci euh, télé bi te itam di wax ni sunu borom ñoo ngi koy ñaan mu yéegal ko ba mu yegg fu kawe kawe kawe suñu borom mën na ko yàlla na ko def di am mbégte nag bu baax a baax a baax ci nii émission bi euh, doxee mm-hmm. nga xam ni jàpp naa ni lépp lu ci bëggoon a leeral rek mm-hmm. leeral na ko nga may na occasion boobu may na opportunité boobu loolu ñu ngi ciy sant bu baax di sant Cheikh waaye di sant képp koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloo woon ak télé bi di déglu sa soppe di déglu sa doom di déglu sa xarit uh-huh. euh, muy Fallou Thiès maa ngi lay euh, jaajëfal mm-hmm. di wax ni daal incha allah bés baa ngi bésu waa la waaye nag bésu Sénégal gépp la nga xam ne ci biir tudde yi aussi ki ma fàtte mooy Xaadim Bamba Diagne Xaadim Bamba waaw Xaadim Bamba Diagne day sama xarit waaw day sama xarit di sama wëllëre sunu borom boole nu mu yàgg lool mu am ay taxawaay yu ama am solo wax dëgg yàlla moom itam euh, ñu ngi koy béggee bu baax di ko wax ni bis bi itam bésama euh, di wax ni daal képp koo xam ne tudd nan la ak ku nu tuddul bës bi sa bës la waaw ñoo ngi am yéene euh, àggale ko ci ñëpp mhm. te bu nu sañoon it ñëpp jot sunu boote mhm. waaye nag comme euh, mënunoo dem ci ñëpp mhm. moo tax ñu ñëw ci télévision bi incha allah jàkkaarloog doomu adama yi <laughs> wax ni képp ku taal sa télé daal jàkkaarloog ñun rek uh-huh. jàkkaarloo gi nga jàkkaarloo ak ñun mooy sa invitation ñoo ngi la yëgal bés bi ñoo ngi la ciy woo di wax ni yàlla nañ suñu borom yóbbu ak jàmm te defal nu ci tawfeex ju yaatu bi jaay Cheikh Al Khadim di santaat suñu kilifa rawatina euh, sëñ Mbaye Ngom Ridial ak jëwriñam sëñ Modou Ngom waaye di ñaanal Cheikh Ahmadou Kara mu yàgg fi di ko yëgal nag ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni te léegi rek yaa ngi ciy tudd euh, mm-hmm. jëwriñ Moustapha muy capitaine Kara moom it ci ci parrain yi la bokk waaw muy xam ni moom it wax yàlla ñuy yàgg di def yëpp ñu nag moom ñoo ko yàgg di ànd mm-hmm. waaw muy jëwriñ di sunu wëlëre di sunu xarit mm-hmm. am taxawaay yu ama ama am solo yoo xamante ni mi ngi koy def xam naa daal buñ fi nekkee di lim mënu matal <laughs> waaw li des ci émission bi daanaka xaw naa xaw naa cete waaw defee kon di wax ba aaxiru daawaana ni alhamdulilahi rabil alamin jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Serigne Fallou Ngom tubaarkàlla yooyu uh, ñu jaajëfal la bu baax Euh, defe naa mbokk yi ñu doon topp ci seen euh, jotaay bu am solo bi di waajtaayu bisu euh, sant Serigne Touba delloo ñu ko Cheikh Mamadou Lamine baara te Serigne Fallou mu woote ko le 2 mars mu yemoog samedi bi ñu jëm incha allah mu ngi noonu seen er-, seen émission bi nga xam ne mooy moom la leen RTT indi loon ñu jël ko waxtaan ak moom ci bis bi waaye yaatal ci ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal ñëpp ñu sant ñëpp gërëm leen waaye jaajëfal leen bu baax a baax di leen wax ni incha allah. Euh, ca bis ba lépp lu fa xew RTT TV dina ko ànd ak yéen wan leen lépp lu fa xew euh, ba ngeen xam sëñ Fall taxawaay bi waaye dégg ngeen ci biir kàddu yi euh, sëñ Cheikh Talla wax na ni moom la ñuy waaje grand théâtre incha allah kon bu ko defee rek na ñëpp ñëw bokk ci partant yi bañ a bokk ci remplaçant yi waaw loolu moom ñu ngi ciy soññee bu baax a baax uh-huh. bu ko defee ñu gërëm Doudou mi nga xam ne moo nekkoon ci caméra bi jaajëfal ko bu baax ci taxawaay yi waaye gërëm équipe technique bi nga xam ne ñoo nekk RTT TV yëpp Babacar Sow réalisateur Euh, gërëm ñi nga xam ni ñoo fi nekk nguy faama laa ngeer ñu gërëm ko bu baax ziar ko euh, borom anniversaire bi ni ko na muñ xaalis bi rek kado yi moom yow moom muñ ko rek <laughs> daal leen lu may wax na ko wax ci groupe whatsapp bi waaye fii moom <laughs> na ko muñ rek incha allah kon ñu jox leen rendez-vous euh, wala balay loolu ñu gërëm président moom Mamadou Seck moom it ci jàppandal gi macha allah bi mu xamee ni sëñ Fallou Ngom moo xewle dañu ma lépp lu ñu man ci woyofal ko rek te jàppale ko ci nan ko def ndax sëñ Fallou moom ku ñuy bégal la te ku ku yàgg topp la wax ay kóllëre yu yàgg yoo xam ne am ngeen ko yéen ñaar ci diwaan bi nga xam ne mooy diwaanu Cheikh Amadou Karam Mbacké Noreyni moom mu féete fii ci Thiali tubaarkàlla moom it ñu fal ko bu baax a baax mbokk yi ñu jox leen rendez-vous incha allah la 2 euh, foofu ci quartier Serigne Abdoulaye Yakhine Cheikh Moussa Kane te lam nañu Moussa taxoon tawretu saf xorom te lam nañu isa taxoon injilu di bu ni daawuda lam na la ni lem bu daan jàng nit yeeg jinne rab yi bokku gëm alxuraan yaa muhammad

Baye Saliou ma ca Touba bu ma al Mustafa ma ca Touba yow nu xamoon tiitaroo dem nga banoo dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wetal nanoo dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wetal nanoo wetal na ma wetal na leen wetal nanoo dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wetal nanoo ijaana salaamata na taduumu yaa salaam أن تدوم يا سلام يا سلام وللعيال في دار سلام في دار سلام دار سلام دار سلام دار سلام دار سلام دار سلام may nu ci kaw salaam may nu ci suuf salaam may nu penku salaam may nu sowu salaam may nu ci kaw salaam may nu ci suuf salaam soowu salaam salaam jàmm mooy salaam jàmm mooy salaam jàmm mooy salaam jàmm mooy salaam ku fi bëgg jàmm yéeneel di wax ci jàmm mooy tax nga am jàmm nanuy doxee jàmm di waxee jàmm boo tëddee jàmm da nga yewoo jàmm jàmm mooy salaam jàmm mooy salaam xew jaajëf ba beneen yoon jërëjëf